li am tey ku si waxul nañu waxante dëgg doo góor dañu te dëgg tey lii yépp lu ko indi mooy ñun les politiciens ñoo ko indi gis nga nguur jarul yenn yi xoolal ñaata doomu adama ñoo dee ñoo ñàkk seen yaram ñii di woote ana seen doom yi ñu ngi làqu naa ku ko xam ah xamu ko si ragal de man na ñëpp ñu ma xam si fit nañ ma tuddee man damay doog a jeex depuis barki démb ba maa ngi jot ay message yu bëri xaaral ma tettale message bi ma wax ni ma yow yaa ngi soog si président joxu a poste de responsabilité joxu la poste ministre joxu la poste DG yow da nga war a toog ñëpp xam ne social bi nga def muy ànd si yow mais bu ne suñu saga li nga bañ ko def ma ne ko man maay def ba jeex ñun képp ñu xam cees jàmm nañuy dox si wàllu social dañ koy wax mu dee ñu on a pas des postes de responsabilité mais lu mu niiw niiw ni ngi posé ay acte population bi gis coow baaxul Sénégal benn bopp la on sait que partout dans le monde ñëpp xam ne ñu ñëpp xale yi mun ñu am liggéey mais xalo Auchan bi gars yi toj ay doomu sénégalais ñoo fa nekk des sénégalais tey ñu Auchan yi saccagé ko mais dañu gën a yokk chômage bi est-ce que vous savez que lu ñuy yàq biir Sénégal ñun ñoo koy fay président Macky Sall protéger na njabootam ah Sonko ses enfants vont bientôt aller au Canada ou en Turquie ou Syrie jàngi ji foofu ah Istanbul wala Afghanistan doom yi jàngi foofu ñeneen ñeneen donc ñu dañu war a dal tey aujourd'hui tey ku sonn ngeen baal ma si kàddu bi mooy baa doola moo sonn et am na lu ñu tal ñëpp xam nañu tey bientôt mi ngi si benn feet bu rëy mooy tabaski borom kër bu nekk faale nii jangeen nii jaxate ñëpp ku nekk yaa ngi xalaat la xar tabaski war ñu nangu nag ku ñu yàqal suñuy dëkk ku ñu yàqal suñu Sénégal ku ñu yàqal suñu feet aujourd'hui xoolal tailleur yaa ngi toog kenn liggéeyul tailleur yi bu ñu liggéeyul ñu fay waas commerçant yi bu ñu jaayoo tey bu ñu fay kan seen cantine ay sénégalais nañu Sénégal dëkku jàmm la dañuy war a delluwaat xel yi surtout vous la jeunesse bu leen nangoo ni leen di yóbbaale tey ku fi dee yaay perte fu ñu toll nii nawet baa ngi ñëw béykat bi soxla nañu soxla nañu lu ñu béyee tey nawet ngi ñëw am na si yéen ñi tey seen kër yi day seen am na ñoo xam ne tey seen koñ problème d'inondation la tey am na la maire ils en profitent pour ne pas faire quelque chose état mënu def yëpp ñun ñaata année inondation bu amee on descend sur le terrain yàgg-yàgg naa leen wax moi j'ai fait de l'assainissement j'ai fait des infrastructures je connais comment ça se passe le drainage des eaux moom lay jàng avant may nekk dans le foncier wala BRT bi c'est des milliards BRT bi c'est des travaux yoo xam ne ay préfinancement la état si yi ñoo koy liggéey tey États-Unis en France manifestation bu am doo gis parce que bus yi du Habib Niang moo si dugg du doomu Habib Niang moo si dugg dañu xam dëgg tey pour nga si bus il faut nga am cent soixante quinze wala cent cinquante tey nañuy waxante tey manifestation am les gens cassent les bus di tasi édifice édifice boo toj xamul ne sa xaalis moo koy remplacer aujourd'hui nag il faut que la jeunesse soit consciente xam tey lu ñu fi yàq mu doon Thiès mu doon Dakar ñoo koy fay il faut que ñu delluwaat si xel yi tey Sénégal pour nga xeex dëgg il faut nga yore sa carte électeur on a à mois des élections dina leer gis nga élection huit mois des élections dafa leer élection kenn du ko këp-këp kenn du ne par force tey Macky tey da bàyyi dëkk bi dañuy dem ba palais mais saa waaye da ngay nax sa bopp état très puissant waruñu bàyyi ay samba boo yoo xam ne tekk ñu dara ñu bëri si ñoom c'est des étrangers bugg ñëw tas suñu Sénégal duñ ko nangu loolu moo tax mbokk yi may nañu dal nañu teey bu leen kenn yóbbaale ngeen xam li ngeen di def ngeen teg seen tànk fi warul man duma leen dugal si ay doxi duuru ñi ñaanal aussi yàlla ñi nga xam ne gaañu leen si yàlla na yàlla yërëm xaare leen ajjana Sénégal benn bokk la ñu ñëpp xamante ne ñu nañu def jàmm